Eh, tey si lay di nuyu ñi seetaan site bi yëpp mm-hmm. waaw. Bombardier ku wax ko maa wax kat. Aziz Ndiaye dafa le 9 juin finalement ñu jàpp le 8 juin tey ci suñu romb bi ñu ngi gis ni sa manager sa frère di Pape dafa ne moom d'accord date 8 juin est-ce que yow si loolu nga d'accord. waaw xam nga manager ak promoteur waxtaan donc euh, man bu ñu d'accordé le 8 ak bu ñu d'accordé le 9 yëpp ben la ci man. donc mais bala mu doon jàpp ay la lewit dafa waroon waxtaan ak euh, ak ménager bi mu signé loon woo ko nekko ko dañ bëgg def lii changé date bi nangam nangam expliqué ko lan moo tax mais xam nga dem si journaux yi rek wax noonu te seet seet si woo ki nga xam ne moo signé woon contrat bi ay malentendu lay am mais pour man daal entre le huit ak le neuf nañu waxtaan ba trouver solution.

avant muy taxawal combat bi xam naa ne ay xarit lañ ay ay gaañ lañ donc loolu yëpp bi ma avant may dugg xam naa kon man su duggee pare dinaa xam lan moo si palmarès am mu tranquille man damay wax ne li ma ñàkkoon yëpp mu ngi si làmb ji te dinaa ko téyewaat bu soobee yàlla incha allah jërëjëf.